téeméer ak ñaari fukk waxtu de grève la kuréel bu ëmb ñiy liggéey ci mairie bi fas yéene amal. ñun ñoo décidé ne dañuy continuer di observer suñu mouvement de grève de cent vingt heures lu waral loolu c'est parce que ñun kat dañoo amul ku ñu waxal te ku ñu war a waxal mooy gouvernement du Sénégal war a toog ak ñun waxtaan ni càmbar mbir bi. seet nu ñu siy trouver des solutions yenn ñi umpalewu leen ne grève bi mi ngi bëgg a yàgg presque plus d'un an liggéeykat yi collectivité territoriales yi ñi ngi réclamer seen droit ñoom jàpp nañ ni rek nguur gi sàmmul lii di xaatim yi ñu amaloon waaw mu am ay sénégalais yoo xam ne dañu bokkoon ñaar ñaari protocole d'accord ak yeneen liggéeykat sénégalais ñooñu ñu fay leen bu yàgg ba fàtte nañu ñun depuis plus d'un an ni ngi ciy daw te li ñuy laajte ni suñu àq ak yeleef yelwaaw ñu saraxuñu dañu ne nañu respecter disposition loi bi lu mu wax ni jox ko travers collectivité territoriale mais aman na bu bu problème amee mais nga woo nit yi ngeen toog ngeen waxtaan seet nu ñuy trouver solution mais ñoom defuñu ko nit ngi régler seen ay mbir fàtte ñu teg ñu ko côté gis nañ ni itamit que jëwriñ bu njëkk di Amadou Ba campagne am rek moo ko ñor beneen précision de taille bu ma woon joxee mooy ministre bi mooy premier ministre Amadou Ba ñun gis nañ ko fan yii yëpp mu ngi wër Sénégal mu ngi toppatoo agenda politique am mais ñun ñu koy woo ñun intersyndical des traver des collectivités territoriales nee ko ñun mënuñoo mënuñu koo tere mu def agenda politique am parce que dafa nekk si son role bu ko neexee mu def ko mais na fàttali ne aussi dafa am yeneen sénégalais yu nekk fii doon ay doomu Sénégal di laajte seen droit depuis plus d'un an kenn fajul leen ko kenn woowu leen ñu waxtaan te euh, grève boobu mi ngi lor askan bi. te ñu yaakaar ne moom moo war a ñëw jàppale askan bi si loolu lu mu waroon def mooy mu woo nit yi ñi toog sénégal bi ñu toog ñu waxtaan càmmar mbir bi seet nu ñu régler problème yi moo gën muy muy muy muy wër Sénégal bàyyi benn problème boo xam ne mi ngi am si collectivité territoriales yi te ñëpp di ko ci xaar moom pour mu joxe ay instruction pour ñu jéem a trouver solution mais ba léegi defuñu ko ñu. ñu ngi am yaakaar ni que jëwriñ bu yees bii di Mamadou Diagne Fada dina faj li ni mel. man fan yii rek man demoon naa représenté intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales ci cérémonie passation de service bu amoon si diggante euh, Mamadou Talla ak euh, monsieur Mamadou Talla ak euh, monsieur Mamadou Diagne Fada man daal ci rencontre boobu lenn rek moo dal sama xel. mooy discours bu ma dégg te discours boobu. monsieur le ministre Fada nee na moom dafa ñëw fekk département boo xam ne dafa am problème moom dina fexe ba fay lakk bi maanaam trouver rencontrer travailleurs yi ñuy seet nu trouver solution le plus rapidement possible. seen grève bi nag yàgg na lool te am na itamit ay gàllankoor yu bari ci askan wi waaye ñoom ñu ngi ñuy xamal ni rek duñu teggi seen tànk tànk nguur gi respecté wul yile xaatim